ay ci mi ñoom ñëpp di di leen bëggee donc mu mel ni rek tey euh, wàllum tàggat yaram dañuy waxtaanee le handball sénégalais qui renaît maanaam wàllum handball dafa mel ni rek dafa amaat yeneen yu ci beesaat euh, Cheikh Tidiane Gomis. waaw mais balaa may ñëw ci handball bi damay wax tuuti football ngeen may ma rek xooleen euh, kii bi maanaam titre sport kii xam nga Walf. Walf Quotidien Walf Quotidien mu ngi ne mu ne. Mané. Sadio Mané. la panne sèche mhm. c'est Pape Lamine Ndour moo ko bind dégg nga. dix matchs sont marqués. Euh, xam nga toog naa fii wax fi ma ne sénégalais yi xam nga nag. si dégg nga sénégalais yi ma ne leen lenn dafa am mooy que Sadio Mané li ngeen doon xaar ci moom li mu kii woon ñëpp jox na leen ko. Hmm. waaw Sadio Mané li mu li mu leen joxoon du leen jox lu maanaam. du jox voilà. mu leen jox voilà loolu il faut nit xam. le footballeur da ngay xool nit ki da ngay topp taaj mais sénégalais yi dañoo xaw a nostalgique. maanaam dafa yegg si ay limites am nga bëgg. voilà non non c'est que limite c'est trop dit. Hmm. mais c'est que euh, euh, maanaam euh, Sadio Mané fu mu nekk nii Sadio Mané ci boppam dégg lii. lii warul bett kenn ci Sadio Mané. Ah waaw pan sèche bi warul bett parce que non Sadio Mané Sadio Mané bi nekkoon euh, deux mille deux mille dégg nga. Mhm. deux mille euh, dix sept deux mille dix huit deux mille dix neuf deux mille vingt deux mille vingt et un ba bi ñuy jël coupe bi Sadio Mané boobu nekkatul bii Sadio Mané il faut ñu nangu loolu. du ay affaire bañ ni ou bien par parloo bi ma koy wax du tey loo moo tax gis ngeen gis ngeen ni euh, euh, Walf Quotidien ci euh, xëtu ci page sport bi moom mu ne que dix matchs sans marquer. depuis septembre parce que da ngay xool Sadio da xool joueur Sadio maane bu njëkk ba ak léegi bokkatul Sadio Mané bu njëkk ba daan noonu énervé. Hmm. dina joué ba match ba jeex nga kaj ko def ko lépp faalewu la sax. da lay ñëw duut la moom loolu la doon fayu Sadio Mané loolu la doon fayu da ngay ñëw di koy dóor daal bi mu ñëw duut la dem taal yi wala paas ñu taal waaye léegi. un deux trois ñu ko tëjee rek mu xuloo ak yow wala xuloo ak arbitre bi wala xuloo nii seetlu leen rek mais parce que non parce que loolu loolu mu mënoon capacité yooyu mu mënoon dëgg dëgg kay mais footballeur nag il faut ñu xam benn affaire mën c'est pas dit que nag il faut que mu leer. c'est pas dit que nag que amatul njëriñ ci équipe bi. waxuma loolu. Sadio Mané présent am ci équipe bi dafa am solo. dafa am solo. xoolal Cristiano Ronaldo. mais gisoo kon mën na jouer comme rôle Roger Mila mu meloon Cameroun. lu xam nga euh, c'est que nag c'est là nag laa bëgg a euh, bu dee en équipe nationale. il faut savoir maintenant comment gérer Sadio Mané. c'est ça maintenant le problème. la gestion de Sadio Mané lii lii lii wax na yee Aliou Cissé lii war na ko xool Tamba ko xoolaat mais xam naa xanaa nag dëgg-dëgg koo xam ne c'est le Sénégalais le mieux payé xanaa nag am na dina mën a toog xalaat lii. te muy sa xarit euh, mu xool parce que non c'est que non indi déedéet il faut que nit ci xam loolu xam nga nit yi de ñëpp a ngi joxoñ euh, baaraam ay Gana Gueye di wax Gana Gueye Cheikhou Kouyaté di bàyyi Sadio Mané. fo wax sa euh, Cheikhou Kouyaté wax euh, Gana Gueye wax fa Sadio Mané. Mhm, d'accord. parce que non seen kii moom moo moom moo wàcc léegi nag ñoom il faut savoir les gérer dégg nga gérer leen moom mooy lan moom mooy xool naka lañ koy kii am na joueurs yoo xam ne xoolal même Messi gis nga Messi. Mm. à la coupe du monde. Mm. dañu naan Messi Messi nii rek mais la coupe du monde c'est vrai Messi euh, Messi a été important mais on l'a fait jouer. d'accord parce pa am ñoo xam ne. dañu ne au service de Lionel Messi loolu la ñuy gestion gestion de joueur gestion du group entraîneur de haut niveau da koy détecter day xam day toog bi sax ne non non attends joueur bii non li ma doon li mu ñu doon jox bu dee ci euh, ci nii la du ko mën a joxe lenn dam koy dugal ci beneen. ci beneen kii ci beneen format. laa koy dugal comme ça mun naa jox li may jox loolu nag. il faut que nga nekk entraîneur bu am. bu bu kàngam. kàngam. mais est-ce que est bëggoon laaj benn laaj. est du loolu mooy wane ne tey match bee paase ñu football 109. est-ce que du loolu moo am répercussion noonu. non non loolu loolu loolu loolu loolu yëfu Aliou Cissé la. voilà moom moo fi créé loo xam ne mosul a am fenn. voilà kon loolu léegi bu jàll très rapidement ci wàllum handball bi. voilà léegi nag euh, ñu ñëw leen ci handball boo gisee tey jii may wax waxu handball euh, parce que dafa am loo xam dafa am solo. gis nga Sénégal discipline yu bari dee nañu. Mm-hmm. dee nañu. ndax mën suñu gagné dara yëpp ñu ngi en nii. lan moo waral loolu. parce que y' a pas les moyens. Hmm. tout ça ce sont le manque de moyen mais nag am na discipline yoo xam ne dañuy yéeg ñu ngi yéeg ñu ngi yéeg. Hmm. mais xam lan moo leen di daal la après. ñàkk moyen accompagnement bi. Okay. discipline day day maanaam mun na def benn processus. le processus un processus ça demande des moyens man sport laay wax man waxantewuma euh, processus day am moyen moyen bi mooy lan mu mooy que yow bu ñu bëggee jugee euh, ci A pour dem ba Z dafa am moyen yow ci teg le sport maintenant demande des moyens pour avoir un résultat bu ma leen di wax ne que Amadou Diaba ni mu def ba gagné euh, euh, médaille olympique parce que là il y avait les moyens il y avait Abdou Diouf qui ak Lamine dem si yàlla euh, bu ne eh lan nga soxla Amadou Diaba ne leen lii ak lii laa soxla ñu jox ko. kon budget bi ñuy voté ci wàllum sport bi fan lay dugg. bu dee tey da nga naan. non non manque de moyens. fonctionnement du ministère. ak tamit bii nee nañu dañ ko yokk yokk nañ ci quatorze milliards xam nga loolu pour lan on a bien précisé mm-hmm. pour les infrastructures lo foo lañ ko dugal de pour defaraat taf tafaat ay yenn stades tafaat ay nangam. mais sans disciples yooyu infrastructure yooyu du am benn benn valeur. est-ce que da waaw d'accord doo dégg lu ma la mais mais mais mais waaw boo defee infrastructure ba pare yow nga defar exemple je te donne un exemple nga def benn salle de gymnastique ba mu yànj waaw te gymna eh, kii ñi di def gymnastique tego leen dans de bonnes conditions est-ce que loolu am na njëriñ xoolal rek mhm. amul benn njëriñ c'est pourquoi je dis aujourd'hui mhm. je prends l'exemple du handball le handball xoolal xoolal xoolal processus bi ngir yàlla parce que le handball aujourd'hui le handball sénégalais mu ngi dundaat mooy li ma la wax mu ngi renaître de ses cendres le handball sénégalais est-ce que xam nga ne danaa la wax benn affaire euh, Sénégal. Mhm. discipline yi fi gën a noo dox dans les années mhm. soixante dix. soixante soixante dix ba quatre vingt discipline yi ci gën a dox handball ci la bokkoon tey jii discipline yooyu doon dox. tey jii ñoom ñoo dee. ana judo et eh, judo. Mhm. ana karaté karaté ñun ñii ñoo fi mën ñun ak Égypte ñun Égypte la ñu doon waaw mais léegi tey ji handball bi dem na ba xoolal ñoom ñooy qualification historique lañu def ci championnat du monde bi passé bàkki démb mooy qualifié deuxième tour le handball sénégalais marche très fort parce que yaa a processus boo xam ne Seydou Diouf le président loo munti wax mais euh, ñoom liggéey nañu ba tey am nañu benn centre de perfectionnement le handball mu ngi à centre de perfectionnement kan moo ko lijjante ñoom ñoo ko lijjantel seen bopp waaye nag léegi nag lenn moo am ñor na sur le plan africain handballu Sénégal ñor na léegi nag xam nga lan moo ci def gagné pour la première fois une coupe d'Afrique en 2024 waaw léegi nit ñuy def ba jox équipe nationale football pour mu dem Abidjan condition yi waaw condition yooyu ñu ko teg nañ ko teg fu na handball bi waaw. Mhm. nañ ko teg ci jigéen ñi handball. Mhm. mooy yow 2024 ñu indil la fi Coupe d'Afrique. dëgg la handball bi fa dee. attaque nañ njaboote ma ne doo dégg ma la nañ leen jox loolu ñu leen jox loolu noonu nañ ko jël jox leen ko jox ko euh, euh, fédération bu handball ne leen eh, lan ngeen soxla football loolu la ki di wax de eh football Macky président bu ñuy waajal Coupe d'Afrique wala Coupe xoolal moom mooy moom mooy diriger débat yi de lu leer laa la wax mooy ne eh lu ñu soxla jox leen waa léegi nag lu ñu soxla jox leen waa léegi nañ ko wax ci handball. Mm-hmm. nañ ko wax ci karaté nañ ko wax ci kii. yamale ñëpp waa ci jeu de dame. Mm-hmm. nañu wax la. Mm-hmm. c'est ça aujourd'hui cette politique laa dégg nga bu amee ay yenn discipline yoo xam ne ñu ngi màgg ñu ngi maanaam euh, euh, seen seen progression waruñu ko arrêter. parce que boo ko arrêté brusquement day watta c' le cas de l' athlétisme gis nga athlétisme fu mu nekk nii mu ngi ci benn progression bu extraordinaire ñu ngi liggéey luy mendi tey jii qualifié à la ñun gëj nañu qualifié euh, kii Jeux olympiques white card la doon am moom mooy invitation ñun ñun ay Jeux olympiques ñun gëj nañu am ay qualification de ay invitation sarax la kaay kaay waaye léegi xoolal athlétisme am na qualification aux Jeux olympiques waaw kooku ñooñu def loolu tey jii lan nga leen wax a defal mooy jox leen les moyens qu'il faut bien sûr te loolu sax waaw xaalis bi am na waaw mhm. dégg nga parce que xam nga defoon nañ fi fii benn affaire u tappale boo xam ne affaire bi gis nga ba tappale yàq bi benn xaalis boo xam ne à peu près ay ay ay ay lan ay cinq milliards six milliards yàq ko fi yàq boo xam ne gi nga bi def maa ngi toog nit ci salle bi ministère des sports journaliste yaa ngi toog man ma toog euh, euh, ministre bi Matar Ba moo fi nekkoon gars yi ak ak ak équipe ak waa fédération ñëpp toog ñuy def ma ne leen leex yi tappale yaa ngi nii xam nga naan contrat d'objectif. nañ ko mos a dóor kii. contrat d'objectif maa ngi koy wax na ma kii contrat d'objectif la ñu wax. on a donné à tout les à à une dizaine de fédérations ay ñi 60 millions ñi 30 millions ana résultat bi contrat de tubaab la la wax contrat d' objectif. xanaa ne man maa déggul contrat d' objectif lan. yëngu ci par voilà mooy que am da ngay togg dara mu ñëw pour am ay objectif waa a mu acca. c'est bizarre ana résultat léegi nag dama ne. ñooñu ñu joxoon loolu yëpp fonds yooyu yëpp ana xaalis bi. fan la dugg football ci la bokk basket ci la bokk ñun ñëpp ci lañu bokk ana xaalis bi ana xaalis bi ana ate nañ ñu wax lan la ñuy def ci xaalis boobu ah. nañ ñu wax lan la contrat d'objectif boobu nañ ñu wax lan la def ci xaalis bi amul bilan amul dara amul dara amul dara on n'a pas demandé à ah euh, euh, Cour des comptes loolu la wax a dem xooli mais ah. eh, eh contrat d'objectif xaalis boobu ñu joxoon seen fédération ñëw leen aca aca ata génn leen ata wan leen lan ngeen ci def personne ne peut le dire il y a que yoo xam ne ñoo jox rapport te rapport bidon man maa la ko wax des rapports bidon man maa la ko wax des rapports bidon yoo xam ne tappale moo ci nekk y a rien dedans mais pourquoi bidon bidon parce que li ñuy wax ak li am si terrain bi bokkul c'est pas bidon mais kon amul daal ah, loolu laa lay wax. kon da ngay ñëw defar sa rapport joxe je demande une chose seulement. dama ne temps bi Matar Ba nekkee fii. dama ne où est tey jii ana résultat wu maanaam fonds yooyu ñu joxoon ci les contrats d' objectif fédération yi anum man nañ ma léegi man nañ ma woo ñu teg ñu teg tele yëpp ñu taxaw ñu jël fédération yooyu yëpp ñu teg leen bu daa ñoom ñu génne nañ ko def ñu ne ma ah ñun de. jot nañu 30 millions wala 50 millions wala 60 millions voilà ñun lii la ñu def. on a formé diw ci xaalis bi. on a euh, def lii ci xaalis bi. ati nañ ma ko andi y' a personne léegi am xaalis bi ba mataa dem na. sëy na léegi nag mu ngi nii am na xaalis bi et il y a de cela ñu koy def depuis loolu loolu depuis la. mais loolu ci bilan ministre des sports. waaw doo dégg. la ministre yi ñoom. budget bi waaw lu tax du du bu buñ jógee duñ leen duñ leen invité bu ñu génnee ci seen. poste poste yi ñu laaj. mais c'est ça euh, par exemple laaj ni tey man j'aurais bien voulu que man man non doo dégg dama la man man je veux que man man man man je man man je veux Matar Ba expliquer ma beaucoup de choses. beaucoup de choses. loolu de duñ ci ñëw moom. yooyu bu ñu ko expliqué wul waratuñu waratuñu ay ay ay ay poste de responsabilité publique. mais c'est ça yooyu ku ko expliqué wul. mais non ba mu leer sénégalais ba xam ne yow crédible nga. koo ci waru si ñëw nag waratoo nekkaat ministre. koo ci waru si ñëw xaalis foo ko dugal mais mais buñ la waxee am na benn scandale. buñ la ah ko waxee scandale boo xam ne gars dañ koo noppi waxuñu ko. xam nga mooy ban scandale. Mhm. mooy gis nga bi ñuy def tour bi ñu gagné coupe d'Afrique bi di def tour bi di yóbbu coupe bi ci kii. dëkk yi waaw gis nga scandale bi nekk ci foofu dinaa ci ñëw faa nga ñëw ci après dinaa ñëw ci scandale boobu. Mm. nga ndam maam scandale moo nekk foofu. Mm. li ñu euh, li ñu wax que loolu lañ ci joxe joxe wuñu ci dara man naa la ko wax. bi ñu doon coupe d'Afrique mooy bi ñuy waxee coupe bi. waaw dinaan dañ def tout voilà. bu ñu la waxee scandale bi ci nekk. c' du n' importe quoi. yow kii léegi kii nu mu tudd waa ji. voilà ki nekk ministre waaw kan Lat Diop. loolu la Lat Diop moom moom mi nekkoon fédération. waaw moom léegi nekk na ministre. waaw Lat Diop li mu waroon njëkk a def mooy taxaw sa présentation à la presse. wax moom euh, euh, lan mooy expérience am ci affaire sport. notamment le football. <coughs> ak la le fonctionnement de la fédération. Mm-hmm. ak qu'est-ce qu'il compte faire. en mm-hmm. général au ministère des sports. Euh, lan lan la envisager infrastructure yi 14 milliards yooyu ñu si yokk lan la ci nara def. Mm-hmm. est-ce que dinañ ko dugal ci priorité. moom de du ñu ñëw quoi. non nga du ñu ñëw du ñu wax. xam nga ba pare di ma jiite nii. man doon moom man ñu nekk suñu ministre. xam xam nga voilà foofu laay tijji encore une fois je pense que aujourd'hui dañoo war a xool discipline yoo xam ne ñu ngi en progression. ñu dooleel leen ñu dooleel leen. pour ñu atteindre objectif bi. parce que sa ndam suñu ndam la. au voilà mi ngi noonu te ñu bàyyi rek. jàppee ja jàppee football rek. jàpp ni football rek mooy discipline tamit loolu tamit faaw ñu kii ko. voilà mi ngi noonu merci beaucoup Gomis euh, liggéey bi amoon na solo dañuy daal di amal une courte pause daal di seet suñu sponsor di 4 wéyal suñu émission. njëlbeen dañu bëggoon a naan kaasu meew alib dong meew alib bu neex